ay di dem europe ñi di dem ay suisse ay ay ay allemand man dama teg di dem ay afghanistan ay Israel, ay ay ay ay ay iran irak terre tanzani alaykum ne wa na le baax jeun ziar sëñ gañ ma lay delloo nuyu bax bax ba yang siam si jàmm nag ba yang siam bax bax ah, américain yi de euh, ñoom euh, bu nu doxaloon yoon rek kon ba léegi Israël arrêté na li muy def mais Israël ak programme américain yi ñoo siy jàppale ak OTAN waaw te yow mënoon yow dëgg ba pare da jàppale koo xamante ni dafay noot dafay noot euh, ñoo xamante ni ñoo ngi seen réew yow nga leen di dooleel xanaa xamoo réponse bi Iran euh, defoon boo gisee li tax mu yeexoon mooy que danu dañu euh, promettre Iran Iran que ni dina def cessez-le-feu bu ko defee guerre bi arrêté moom moo taxoon Iran répondre woon quoi place yooyu si la Iran yi États-Unis leen ko waxoon ak occidentaux yi dara amu si moo tax mujj euh, kii mais oui ça loolu moo tax ñu bëgg làmbaat foofu noonu ndax xam na ni. Euh, beneen répondre bu Iran dana nekk euh, répondre bu métti dana nekk répondre bu métti te waa Iran ñoom ne duñ ko bàyyi noonu xam naa looloo tax ñoom ñu bëgg a jaar fële pour def si sëlëfa pour Iran bañ defaa répondre ndax xam na ni répondre beneen bi ñëw mooy gën a diis foofu bu jàll te sa sëlëfa moom gëma Israël dina ko nangu ndax Israël ñoom xam na ni euh, période bi rek la ñu mën a profité pour am li bëgg ci États-Unis lu ko mooy bu élection yi jàllee li nu bëggoon ci États-Unis lu bare États-Unis euh, maanaam dinañ wax ni lii la ñuy def États-Unis ni que loolu du ma ci ànd ak yow actuellement ni sax euh, boo gisee Joe Biden li tax muy laamisoog israéliens yëpp pour bëgg élection yi bëgg gagné élection yi moo tax ndax xam naa ni bu opposé woo ak euh, juif yi rek Kamala Harris du baax si moom loolu moo tax euh, loolu moo tax Israël di profité si pré élection yi nii li mu mën a am yëpp si États-Unis si pré élection yi la ko mën a amee mais bu ko weesoo ñàkk euh, moom. président bu États-Unis Joe Biden démb euh, démb euh, bi mu demee Philadelphie doon ko laaj ci question bi nga xamante ni Iran moom la kii Israël moom la doon def moom nee na Israël laalu lu dul euh, base militaire yi kon nag comme base militaire yi kese lan laal am nañ yaakaar que daal. affaire yi war na mën a jeex ci diggante Israël ak Iran maanaam daal euh, li mu gis daal mooy que ne Isra Iran war warul fayu ndaxte Israël laalul lu dul siibulu baa aussi tamit radar yi doon wax israéliens yi dañ koy yàq waa Iran ñoom démb li ñu xamle mooy que ni benn batterie moom lañ si yàq benn batterie lañ si yàq mais. Euh, ak euh, quatre soldats yoo xamante rey nañ ko si. ba léegi euh, Israël yi dégâts yi nga xamante ni def na ko biir euh, def na ko biir Iran neenu am na benn usine boo bu daan produire missile turu missile bi nag xam missile mu. xaybaar mi sunu xaybaar xam euh, su ma jumul noonu la tur bi tudd eh, usine boobu laal na ko te usine boobu pour ñu man ko defaraat réparation yi si waat pour mu mën a mat maximum dina mat deux ans moom la expert yi wax mais nag man sama xel mu gàtt mooy que ni Iran bu demee bay defar ay zaaru euh, usines yooyu du si defar benn maximum bien si defar euh, ba ñaar mais daal expert yi ñoom li xam ne daal mooy que ni euh, réparation boobu daal pour mu am maximum xaw ma am deux ans.